Euh, profiter de ci occasion pour voir de l'éducation. éducation nécessité ou transformer notre système éducatif euh, Mon euh, système éducatif est un peu pour nous donner une am excellence ci y science ci le digital informatique bi ci le numérique bi intelligence artificielle fàttali na tamit importance su introduction aux langues nationales parce que école de war dimbali en souveraineté suñu wax nag souveraineté ci wàllu euh, agriculture la ci wàllu industrie la euh, ci wàllu yëpp la mais li ko lal mooy xam-xam ak jikko jikkoy rafet yooyu euh, éducation ak si éducatif moo koy joxe moo tax gis ngeen ni ministère éducation nationale tamit fësal na benn programme bu am solo bu ñu wax programme nité nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école boo xam ni accent bi yëpp mi ngi koy def ci jikko yi ak ci valeur yi donc mu nekk ubbite boo xam ni Euh, daara yi sunu valeur spirituelle sunu éducation religieuse monde culture monde euh, sport monde numérique nous avons day dugaat ci école pour accompagner donc l'effort d'éducation kon nekk na moment yoo nous ni xalaat nañu mel ni ndëpp la boo xam dañ ko pour que nous xam ni moom moom renforcer pour que notre système éducatif puisse marcher. Le président je tamit encore une fois centralité et importance aux enseignants naka la ñu valoriser la fonction donc de ces enseignants là pour ñu mener accompagner donc euh, euh, école accompagner donc suñu doom may rafetlu place boo xam ni jigéen ñi jël nañ ko xale jigéen ni rafetlu tamit place bo xamni suñu doom yo xamni yalla natto na leen ak ay laago ñu am ay euh, place yu macha allah am na ay non voyants lañu wante des ay mention am ñoo xamni ni dox sax mënuñ ko def ak bind mënuñ ko def wante gorgol lañ ba am ay mention euh, ci euh, examen et aujourd'hui remporter ay prix spéciaux donc pour dire simplement que excellence euh, jikko excellence jom excellence fulla la ak nooy gissé sa bop ak nooy gissé sa rapport ak nation donc tay n'est qu'une na occasion pour le chef de l'État mais pour nous, tous les acteurs de l'éducation nous avons l'éducation, éducation avons école et je pense que dina n'est qu'un point de départ pour réformer yoo et nous war euh, euh, engager très prochainement euh, pour la transformation de l'école. depuis 1961 discours d'usage de prononcé ak euh, réponse yo xamni chef de l'État dañ koy prononcer yooyu day nekk ay discours ay wax yo xamni euh, dañuy manam mandargal euh, li askan bi doon dund ci jamono yooyu donc discours bu nekk rek ci concours général dafa nekk discours bu am solo euh euh dañu xawon sàggan nak bu ba légui amul ben ouvrage bo xamni ni tëgg nañ ko bind nañ ko pour mën a retrouver discours yooyu yëpp moom la ñu góorgóorlu bi ñu ay instruction président de la république nous réaliser ouvrage beaucoup, pour mu nekk loo xam day marquer l'histoire de l'école marquer l'histoire aussi euh, de la marche donc suñu nation vers l'excellence kon mu nekk moment bu am solo am leneen tamit loo xam président daf ñu ci ñaaxoon mooy ñëpp ñoo xam ne dañu nekk diaspora wala nekk ci biir réew mi ci boppam euh, nekkoon ay lauréat concours bi newoon nañu def pour mën leen retracer ñu mën reconnecter wu à à eux pour ñu mën participer ci effort de développement

waaw euh, day rek simplement cër ak président de la république jox ko éducation yag nañ wax ni dafa am déficit enseignant et c'est jii l'une des mesures phares bo xam jël nako euh, de façon solennelle moy le recrutement donc d'enseignants. enseignant dafa am solo parce que enseignants yi sonn nañu te xalé tamit gën nañ sonn parce que euh, le manque d'enseignants, enseignant day indi ay conditions d'apprentissage yo yoo du favoriser donc l'excellence. Euh, soudain dans l'excellence, excellence ak une transformation de l'école et de la nation day baax mettre euh, sur place et en place en fait les conditions yo xamni ñom ñolay euh, accompagner donc dans cette marche-là vers l'excellence donc dañ koy rafetlu di bu baax le président de la République pour mesure phare bobu ak décision boo xamni jël enseignants du élèves du parents surtout dans xaar surtout ci zone déshéritée des yenn conditions qui doy war la et euh, alhamdulilah ci décision de xam de ñun ñoo ko déggandoo ko rafetlu bu baax ak yeneen yoo président jot na wax orientation introduction bilinguisme avec les langues nationales avec l'anglais euh, aussi l'amélioration donc de de de de l'environnement d'apprentissage des enfants donc l'école yoo xam ni war mettre aux normes pour enfants yi de façon générale mais en particulier aussi pour les enfants qui sont en situation de handicap mettre un accent particulier sur l'intelligence artificielle, euh, sur le numérique et sur la science, en invitant vraiment euh, nos enseignants et l'école de façon générale, nous n'est que des pédagogues pour amener les enfants à aimer la science, à aimer le numérique, à aimer donc l'intelligence artificielle. Mais déguiner sen bop, xalé sen bop, sen compréhension des enjeux xale yi ñoo intelligence artificielle ñoom ñoo numérique ñoo langue nationale c'est pour dire que Khalé parrain nous, nañu acteurs yi pare nañu li des rek en avant pour le changement de l'école en avant pour le changement et la transformation donc du pays